asalaamaaleykum mbokk yi teel a altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci shawaal muy weeru kori di fukkeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonente bi salallaahu alayhi wa sallam dëppoo juróom benn fan ci weeru mai ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu wala ku ca daloo altine ju nekk sunna la ci man mu woor ko ñaanuk bis bi yow yàlla mi burub jibril ak mikail tey burub israfil maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tàngooru sawara ak mbugalum bàmmeel allahumma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfila audu bika min xarri nnaari wa min adaabi alqabr allahumma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfila audu bika min xarri nnaari wa min adaabi alqabr xadisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na ngërëmul sunu boroom mi ngi ci ngërëmul ñaari wayjur merum sunu boroom mi ngi ci merum ñaari wa wayjur xadis bi at tabaraani nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ridal rabbi fi ridal walidayni wa saxatuhu fi saxatihima rawahu tabaraani waxtu julli yi suba waxtoon dana tàbbi 5h28 juróomi waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñett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 diisoo 19 heures 21 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak benn yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin